age te di bës ci cloche de notification bi ngir mën a jot en temps et en heure toutes nos émissions Abdourahmane euh, le 31 décembre passé le président Macky Sall comme ni mu koy defee euh, chaque année euh, mi ngi wax waxtaan na ak askan wi voilà def euh, bilan daanaka wax ak askan wi on va faire le décryptage waaw <coughs> ah, Christa maa ngi lay jaar waaw le 31 décembre Macky Sall def na son dernier discours à la nation quoi parce que discours bi loolu mooy premier aspect bi nga xamante ni. moom moo ci feeñ quoi mooy c'est son dernier discours. moom dafa tàggatoo quoi mais. man discours bi su ma koy décrypter man nii laa koy gisee quoi damay naan ci sama gis-gis quoi discours bi ñetti parti la mhm. <coughs> maanaam ñetti parti yi mooy. li ko li nga xamante ni première partie bi mooy li nga xamante ni moo ko naqari si diiru muy nekk président yëpp deuxième partie bi mooy li nga xamante ni moo ko neex troisième partie bi nag mooy tàggatoo bi mooy ses quoi léegi ba ma commencé si si deuxième partie bi soo ko dem si première partie bi li nga xamante ni moo ko neex laay njëkkee quoi si décryptage bi li ko neex mooy son bilan yaa ngi dégg Macky Sall moom quoi qu'on puisse dire il a un bilan élogieux yaa ngi dégg maanaam <clears throat> moom bu nekkoon day bokkaat ci élection yi. maanaam bu bilan moom bii rek mën na tax ñu falaat ko dans rek règles de l'art parce que dafa am lu mu lu mu lu mu def loo xamante ni dañ koy laal ni gis ne lii Macky moo fi def. te domaine boo dem tamit ci ci réew mi secteur boo dem secteur d'activité boo dem am na lu fa président mag Sall def. évidemment yaa ngi dégg. boo jëlee wàllum. wàllum transport laay laay wax parce que transport moom bokk na si li nga xamante ne moom lay gën di fësal saa su ne def def na ci jéego yu rëy yoo xamante ne kenn mësu ko ci woon def. soo waxee TER ne BRT rek rek def na fi lu fi. lu fi benn prédécesseur deful. Mm. ay léegi moom moo fi indi train express régional. yaa ngi dégg boo xamante ni day daw jam ñaajo no jam ñaajo Dakar mm. normalement objectif bi mooy AIBD. ak dakaar yaa ngi dégg mu nekk loo xamante ni dafa yombal dem beeg dikk bi ndaxte yéexaay bi gaa yi doon am te embouteillage yi waraloon ko terre bi dafay ñëw wàññi ci lu bari dindiwul lépp mais wàññi na ci lu bari tax na ñeen ñuy dëkk ay Diamniadio ay Sébikotane ay Tëngéej ay Kër Mbay Fall Caaroy yu si bari léegi terre bi lañuy jël moo leen indi dakaar si lu gën a gaaw kon loolu rek jéego la bu rëy boo xamante ni loolu rek dara la. nga wax BRT bi BRT bi tamit même rôle lay defit moom dafa ñëw pour désengorger la capitale mais concernant nag ñi dëkk ay ñoom Guédiawaye ak yooyu kon nga xam ne am na ay actions man xamante def na ko ci transport quoi nga demaat ba ci transport <coughs> Dakar Dem Dikk tamit yaa ngi koy dégg ci discours mi ngi wax jéego yi ñu def yaa ngi dégg nga jógee ci transport dem ci wàllum ba léegi transport la parce que wàllum tali la ñuy wax wàllum route. infrastructure waaw ah, infrastructure routière moom. lu si Macky Sall def moom ñëpp teg nañ ci seen bët. wax dëgg yàlla defal na ay tali defar ay pont defar ay auto pont fépp foo dem ci Sénégal nag yamul Sénégal rek parce que pont yi moom. fii nga xamante ni dëkk yi nga xamante ni dañ fa dafa amoon difficulté d'accès yu si bëri. ndox nekk diggante ay gox yoo xamante ni maanaam. wala wala tali waaw ndox si boppam sax parce que boo ñu nee Gambie rek moo Gambie bi ndox moo ndox bi moom moom moo nekk genre obstacle mu ñëw def fa benn pont boo xamante ni temps bu gars yi perte léegi temps boobu dañ koy gagné ma loolu jéego la tamit si wàllum transport léegi boo buñ jëlee <clears throat> buñ paasee wàllum transport ak wàllum tali ak yooyu yëpp parce que loolu moom dañ cee wax ba sonn maanaam lu mu ci def moom ñëpp teg nañ ci seen bët. mun nañu wax tamit si yeneen domaines yu si mel ni agriculture tamit am nay jéego yu bari yu mu si def. jël nañ budget bi yóbbu ko fu gën a sori fu mu nekkoon. yaa ngi dégg nga dem ci wàllum santé tamit même chose def nañ ay infrastructure sanitaire yu bari yoo xamante ni maanaam ba si ba bu Tuubaa rek boobu yàggul dara. ak bu Kaffrine bi yooyu yëpp ay infrastructure la yoom yu am solo la yoom def na ko teg ci seen bët yaa ngi dégg tamit maa maanaam boo demee ci système éducatif bi tamit am na jéego yu mu def donte gars yi ñu ngi naan déedéet mais jéego yi maanaam bu ñu xoolee ne Sénégal ñaari université la amoon mu ñëw fexe ba Sénégal am cinq université yaa ngi dégg xam nga loolu tamit jéego la nga xam ne kon au moins buñ secteur boo dem am na lu mu fa def loo xamante ni maanaam yokkute la maanaam buñ doon bu ñu doon wàññi dañuy dañuy yokk kenn ko wàññi yaa ngi dégg kon loolu c'est avancement la. ba ci secteur de l' ak de l'eau def na si ay jéego yu bëri ndaxte 2012 bu Macky Sall di ñëw si nguur gi coupure de courant xawoon nañu rey bu mu faloo ba léegi loolu moom du ma ne dañ na mais lu raar la léegi wàllum ndox bi tamit ndox nekkul woon ñëpp ko doon am yaa ngi dégg am ci côté yëpp côté boo dem da ngay gis ne def na jéego yaa ngi dégg si domaine si domaine surtout nag si wàllum infrastructure parce que Macky moom bañ nañ ko ba gars yi la bâtisseur lañ koy woowee. parce que moom dafa ñëw fekk dëkk bi am lu bari lu manqué woon ci wàllum infrastructure moom mu gis ne bu bëggee maanaam accélérer l'émergence de ce pays fenn lay jaar mooy ta def def ay infrastructure yoo xamante ni de dernière génération lay nekk day méngoo jamono si côté boobu moom la misé woon si wàllum PSE bi moom wàllum infrastructure moom lu bari def nag ko kon moom parti boobu boo gisee mooy li ko neex parce que bilan am moom mooy li ko neex si si si si lu mu fi parce que def na loo xamante ni moom ñi ko wees defuñ ko yaa ngi dégg te loo nga xamante ne la ñu ngi koy teg bët kenn du ne gisuñ ko yaa ngi dégg loolu nag am na ñu ne baax na am na ñu ne baaxul ndaxte nit moom lu mu def lu ne ñii dina baax si ñii dina dina am si ñoo xamante nit mun na bañ a baax si ñoom nekk ku mu neex nag yaay gisee nu mu la neexee man du ma ne baax na bon na waaye dama naan gis nañ ko mm-hmm. te def na ko kon loolu moom mooy jéego bu mu indi si réew yaa ngi dégg si côté yëpp parce que mënuñu lim lu mu fi def yëpp. mais discours am rek boo ko dégloo dina la defal maanaam bilan bi yëpp def na si daal lu si gën a yaatu loo xamante ni di nga xam ne lii mooy le bilan du président Macky léegi bu ñu jëmee si lu ko naqari. si fi toog maanaam boo dégloo Macky Sall discours am ni mu commencé mooy li ko naqari la commencé sax. moo tax man ma commencé si lu ko neex. wane ne bilan bi moo ko neex mais mais li mu li mu jiital mooy li ko naqari parce que boo xoolee mi ngi naan les graves violences. qu'a connu notre pays cette année moom foofu la commencé. yaa ngi dégg maanaam Macky Sall 12 ans yam fi toog yëpp lenn ko naqari mooy li réew mi naroon tàq. yaa ngi dégg à cause d'une affaire boo xamante ni c'est une affaire privée yaa dégg gars yi politiser ko mu dem ba ëpp loxo. maanaam nguur gi dem ba. maanaam yóbbu si dëkk bi si benn climat de tension bu métti boo xamante ne ay bakkan yu bari rot nañ si. yaa dégg loolu moom bu ñuy wax wàllum naqari loolu moo naqari Macky Sall si si si si si si reñam ndaxte wax na ko si début de discours mais ci fin de discours bi tam mi ngi wax wàllum populisme wàllum extrémisme ak wàllum manipulation. Eh. yaa kon insisté na si ne moom lii moom loolu moom mënu ci dara. ndaxte nguur moom mënoo ñëw du début à

gars yi di wax ay complot d'état ak yooyu ba dëkk bi demoon ba am benn climat tension bu metti Macky mm. Sall moom boo xool laajee lu la gën a metti loolu lay wax mm. parce que wax na ko ci discours bi du début waxaat ko à la fin de son discours mooy di dëkk bi yëngu ci moom ci moom bu sañoon daal man gis naa ne reñam yëpp du am dara luy yëngatu ci dëkk bi mais loo mënul nekk maanaam mm. loolu moo ko naqari ci discours am d'après lu ñu dégg ci lu mu wax quoi mm-hmm. léegi troisième partie discours bi nag mooy tàggatoo bi yaa ngi dégg maanaam parce que discours bi boo xoolee ba si biir boo ko dégloo te te jàll rek tax ngay wax may naan discours la boo xamante ni c'est un peu émouvant en fait. yaa ngi dégg c'est peut-être émouvant parce que maanaam boo nekkee président de la république. si benn côté mën nañ ne ay privilèges yu bari da nga koy am. léegi privilèges yooyu tamit boo koy quitté mën na bañ a neex si yow. parce que tamit dafa neex nga jiite nit ñi. bu bu dee maanaam liggéey moo tax a quoi yaa ngi dégg donte dina am tamit côté bu du neex. mais da ngay gis ne discours bi daal tàggatoo bi dangay gis ne moom moom bu sañoon daal toogaat ci réew bi daal. mais mm. nag loolu moom jiitu waxam jiitu na mënu mënul nekk. Eh, ba pare soppi nañ constitution ba ca mënu fi toogaat. <laughs> mais da ngay gis ne son discours si à fin de son discours muy tàggatoo da ngay gis benn genre daal benn yëg-yëg bu muy wax si moom mm. li mu yëg si réew mi daal ngay xam ne mm. nit daal moom ku ne mën nga ko gisee nu ne. ñii bu ñuy gis ne c'est un dictateur beneen côté tamit. am na ñu gis ne liggéey na réew mi te ku bëgg Sénégal la yaa ngi moom waxal na boobu nee na ku bëgg Sénégal nee na j maanaam am na nu mu ko terme bu mu utilisé nan la ko waxatee waay terme bi <laughs> mu a j'ai le Sénégal chevillé au corps et j'ai le Sénégal au cœur maanaam c'est terme boo xamante ni man personnellement daf ma neex mhm. ndaxte maanaam képp koo xamante ni yow da ngay diriger réew mi war nga bëgg réew mi yaa ngi def ma waaw bëgg boo xamante ne mën na la war na laa jaral lu ne. amour de la patrie jaral boobu tamit mën na laa yóbbee lu ne. si dee fu ma waxee. Mm. moom nag mën naa ne si jar bëgg réewam wala jaral na ko mu maam mu yóbbee ko si lu ne ba jaay gisee ko noo xamante ni peut-être lu noonu la bëggoon ñu gisee ko. Mm. mais nit yi ku ne ak sa gis-gis daal. moo tax discours bi man ñett parti yooyu laa koy laa koy décrypter quoi. Mm. li ko gën a neex li ko metti ak tàggatoo bi. li ko gën a neex mooy so bilan nga xamante ni. li fi jàll yëpp defuñu la mu def moom loolu but moom loolu lay ndamoo mhm. li ko gën a naqari mooy dëkk bi tàq bi mu doon tàq yàggul dara mhm. te ay affaire de politique yoo xamante dafa rax si ay affaire privée indi ko yaa ngi dégg nag fin bi nag mooy tàggatoom mhm. nee na nag dina créer benn fondation boo xamante ni c'est dédié à la paix au développement et au dialogue yaa ngi dégg loolu peut-être loolu mooy nekk legam bi nga xamante ni moom la fi nar a bàyyi. mais eh. nag am na ñeneen ñu koy laaj leneen. genre Bougane moom mu ngi koy laaj ay chômage beeg. di ko laaj suñu <laughs> det beeg yooyu nga xam ne que ku ne ak tamit yow as gis-gis ba nga ciy am. <coughs> mais moom mën nañu wax ne daal au moins il est le premier président boo xamante ni il est c'est président sortant. Eh. même bu nekkee waxoon na ne damay def troisième wax yaakaaroon nañ ne dafay def troisième mandat. Eh. il laa respecté sa parole. yaa ngi dégg. def un dernier discours boo xamante ne c'est un discours d'adieu ku ko déglu da nga xam ne kat Macky am na lu mu def certes am na lu mu deful ñi ñi ngi wax waxu mal gouvernance mais foo faut reconnaître une chose il a mis le Sénégal sur les sur la voie laay wax sax parce que dañ dañu ne on est un pays en voie de développement on est un pays pauvre loolu kenn kenn naataable wu ko mais moom ci gis-gisam teg na ne réew mi si yoon boo xamante ni buñ ko toppee mën nañu yóbbee émergence mm. léegi nag loolu nañ ko xam si beneen si yeneen jamono yi ñëw ba fi bu fi noonu la fa demee. espérons que mu matal euh, li président Macky Sall amaana manqué le woon yëpp. waaw euh, am na fu ma bëgg ñëw ak Rama Rama tu vas faire le décryptage voilà comme Abdourahmane ni mu ko defee mais aussi bëgg naa tam nga ñëw ci parce que askan wi ñu bëri dañ doon xaar mu accès discours am ci ci cherté de la vie. ak euh, métit yi askan wi di dund et mais plutôt. il a préféré faire le bilan wax li ko naqari voilà ban gis-gis nga si am. Euh, gis-gis bi ma ci am nag Kouzida mooy c'est normal c'est normal parce que euh, bilan lay def te euh, kuy def billan li nga xam ne nag moom nga liggéey ci ci lu baax nga koy accès. te à raison moom bi dootul présenté waat il a fait <laughs> donc je pense que loolu c'est normal que mu liste li nga xam ne moom la fi def ci lu baax ndax loolu c'est pour sortir par la grande porte comme ni ñu koy waxee sortir nag ci benn. benn image boo xam image bu rafet lay doon euh, ci euh, sénégalais yi je pense que euh, loolu loolu la war a def en fait ñi nga xam ne nag ñoom ñoo war a décrypter li nga xam ne moom mooy peut-être méttitu sénégalais peut si si si côté opposition je pense que lay demee bu ñu ñëwee nag ci discours bi en tant que tel gis nañ comme li nga wax daal dinay def li nga xam ne moom mooy bilan am listé li nga xam ne moom la fi jot a def bi mu nekkee président ak léegi te c'est à parce que jot na fi def nag honnêtement des réalisations yoo xam ne am fi woon woon avant mu fiy nekk déjà euh, sànq Abdourahmane mi ngi koy wax moom si boppam wax na ko ci wàllum transport def na ci loo xam ni peut-être amul woon Sénégal bokk na ci TER bi nga xam ni jamono ji comme Abdourahmane li mu ko waxee mi ngi daw ci diggante Diamniadio ak Dakar di faciliter nag li nga xam ne moom transport bi nag ñu bëri ñi dëkkee ci ci ci diwaan yooyu gaaw na euh, da ngay da ngay gagner du temps en plus euh, foo bëgg a dem euh, ci diggante Diamniadio ak Ndakaaru da nga fay dem sans problème beneen bi mooy BRT bi nga xam ne nag mi ngi mi ngi waaj nag commencé daw di daw nag ci li nga xam ne moom mooy banlieue ñëpp xam nañ ne banlieue bi dañu am d'énormes problèmes de transport mm-hmm. pour suñuy vaquer seen ay occupation suñuy dem liggéey ak moom mooy BRT bi dina leen faciliter li nga xam ne moom mooy seen circulation ñuy mën dem fi ñu bëgg a dem à temps du ñu tardé ak gagner du temps ak de l'argent parce que euh, comme ni ñu ko waxee tarif yi nekkul tarif yoo xam ni cher na c'est c'est abordable c'est c'est à la portée euh, di ñi nga xam ni ñoom ñooy euh, ñi dëkkee ci jamono ci ci diwaan yooyu le pardon bu ñu ñëwee nag ci diwaan ci ci ci ci wàllum santé ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall gis nañ ko ci discours bi daal na ci énumérer ñaari mbir yu am solo yoo xam ne Sénégal réalisé na ko ci diggante euh, bi mu nekkee président ak léegi ndax 2018 gisoon nañ fi ay bébé siamois maanaam bébé yi nga xam dañoo takkaloo première fois ñu def opération mu réussir fi nga xam ne moom mooy Sénégal loolu c'est une grande avancée fi nga xam ne moom mooy Sénégal parce que si réewu Afrique yi bëriwul lu ñuy gis genre yooyu di fi am mais la première fois ñu daal di essayer euh,

avant tout. Mhm. Euh, gis nañ tamit li nga xam ne euh, moom mooy couverture maladie universelle euh, comme comme ni nga koy waxee parfois soo tegee li nga xam ne moom mooy benn benn mbir dina am ñoo xam ne dañ koy dañ koy fustiger maanaam du ñu d'accord ak yow wala peut-être dañuy gis ay ay limites mais au moins ça été fait am na ñoo xam ne ñu ngi ciy jariñu donc c'est à saluer te comme bilan la ñuy wax dañu ko ci boole li nga xam ne moom mooy couverture maladie universelle universelle boo ñëwee tamit ci wàllum société bi maanaam ci quartier yooyu yaa ngi si bourse familiale yi moom nee na bourse familiale jóge na ci vingt cinq mille am donc évolution am na changement am na c'est à saluer parce que euh, comme li ñuy wax rek a chaque fois bu ñu defee dara rek bu ñu tegee jéego dina am benn même bu dee benn sénégalais sax dina ci bénéficier wu donc dañu koy dañu koy dañu koy saluer euh, di di ñaan yàlla nag peut-être mu yokk am ay avancement mais mais c'est un pas boo xam ni euh, daal dinañ koy teg Crozita bu ñu ñëwee nag ci wàllum di président Macky Sall baaxee na ko réew mi mel ni nag fële nga xam ne moom mooy arène nationale nga xam ne démb ñi ngi fa doon amal li nga xam ne moom mooy combat gis nga xam ne moom mooy seen ay lamb dematuñu voilà mm-hmm. yàggoon nañ ko bëgg dematuñu si si stade yi ñuy footballé ak fenn dañoo am seen propre stade loolu aussi c'est à saluer gis nañ aussi beneen stade basket di Dakar Arena fële ca euh, diwaanu Diamniadio ak stade Abdoulaye Wade mi nga xam ne grande réalisation ndax stade la boo xam ni stade bu mag la ñëpp di ko magnifier parce que bokk na euh, ci ci stade yi nga xam ñoom ñoo gën a rafet biir biir biir Afrique euh, di di répondre ci normes internationales yëpp stade la boo xam ni tamit euh, c'est à saluer dafa bokk ci ci li nga xam ne ci bilan président Macky Sall dañ ko ci sant laa mën a wax parce que c'est une c'est une bonne chose mm-hmm. boo gisee nag leneen loo xam ne tamit ci wàllu euh, politique euh, man ci laa ñëw président Macky Sall daal koy def il a réussi quelque chose euh, moom mooy bi mu ñëwee Sénégal ak léegi bokk na ci moment yi nga xam depuis de deux diggante 2012 ak 2024 opposition Sénégal bokk na ci opposition yi gën a faible depuis nag bi ñu commencé bi ñu bi ñu nekkee 1960 ba léegi parce que gis nañu daanaka président Macky Sall amul opposant opposant yépp yi nga xam ne gis na leen ñuy tourner autour ci fauteuil présidentiel wala ñu xaw ko. Euh, jàpp ni mu xaw a jàpp ni peut-être mën nañ ko déranger daf leen di écarter wala ñeneen ñi si des mu xëcc leen ci booram donc voilà <laughs> donc euh, c'est un c'est un fin stratège boo xam ne nag gis nañ ko ci ci moom ni ni dafa mën li nga xam ne moom mooy politique te loolu du betti kenn parce que boo gisee soo école euh, fi mu génnee ak fi mu jàngee du bett kenn parce que président Abdoulaye Wade ñëpp xam ne aussi c'est un fin politicien te ci moom la la génnee même bu dee ni sax nag ni mu génnee ko rafet këram la génne donc euh, gis nañ ni nag loolu daf ko réussir bu baax c'est c'est c'est bokk na ci réussite yi gën a mag opposition bi nga xam ne ñoom la waroon a jàkkaarloo peut-être euh, nañ wax ni sax Macky Sall amutoon amutoon opposant peut-être si dernières années yi la euh, peut-être phénomène Ousmane Sonko daal di génne ñu gis ni kii opposant la boo xam peut-être président Macky Sall mënalu ko lu bari ndax même en prison il de déranger mais ñi si des yëpp amul benn problème pour écarter ci li nga xam ne moom mooy chemin loolu aussi bokk na ci li nga xam ne moom mooy stratégie yu mu doon doxal te te am ci li nga xam ni euh, moom mooy ndam peut-être nag li ñuy wax euh, ci euh, ci bilan bilan mënul baax à cent pour cent mënul parfait à chaque fois di nga gis li nga xam ne moom mooy ay limites limites ci sànq Abdourahmane mi ngi koy wax moom si boppam wax na ko bokk na ci ñi nga xam ne ñàkk nañ nag seen bakkan ci nguuru Macky Sall daal dinay bari loolu ci manifestation ci li nga xam ne jëm na ci wàllum peut-être ay ay ay poli ay ay ak politicien xam ni euh, laal nañ ko neexul ñi nga xam ne ñoom ñooy ñenn ci askan ñu génn di manifester ñu daal di leen di euh, ñu ñàkk seen bakkan laa mën a wax ci ci ci li nga xam ne moom mooy terrain bi loolu bëri ci li nga ko gis ci nguuru Macky Sall loolu nag euh, c'est à comme ni nga koy wax parce que mm. comme li ñuy wax rek on tire la population tey ji population am nañ droit génn manifester li leen nakari te dara leen ci fekk loolu loolu aussi bokk na ci li nga xam ne peut-être dañ koy xaw a ñaawlu ci li nga xam ne moom mooy nguuru président Euh, Macky Sall bu ñu gisee nag euh, li nga xam ne moom mooy réalisation yu bëri na euh, li nga xam ne moom mooy manquement yi bëri na fi may jeexalee rek fenn kese la moom mooy wàllum immigration clandestine parce que kenn mënul tudd nguuru Macky Sall te tuddoo bu immigration clandestine parce que dernières années yi gis nañ li nga xam ni dee nañ ci ay ndaw ci ci ndox mi mm-hmm. loolu bari nañ lool lool lool te loolu li ko waral peut-être moom mooy ñàkk liggéey fi nga xam ni moom mooy seen réew parce moom ci boppam ci discours am mi ngi doon wax ni je, je dire peut-être euh, euh, emploi des jeunes euh, daf si gën a accès li nga xam ne moom mooy liggéey mais feeñul qu'on le feeñul parce que dañu gis ni immigration clandestine dafa gën a yokku xale yi dañu gën a dem ci géej gi te te loolu c'est à déplorer bu ñu sañoon li nga xam ñoom ñooy suñu ndaw dañuy des ci réew mi te gis nañ ni euh, nguuru président Macky Sall naam amoon na nag ci ci ci yeneen nguur yi mais euh, dernières années yi dernière dernier mois yi dafa gën a yokku loolu nag am na lu ko sabab moo tax loolu aussi duñu du ñu jàll nag te te waxuñu ci peut-être euh, président bi nga xam ne moom moo koy succéder dina xam ban moyen lay jaar nekkul loo xam ne gënal na nit ñi même ñi xam ne ñi ngi jóge fi di dem euh, extérieur gënalu leen bu leen bu ñu bu ñu sañoon dañuy des ci seen réew daal liggéey loolu daal laa xamoon ne Crozita brièvement mënoon naa ko wax ci discours ki nga xam ne moom président euh, Macky Sall 31 euh, décembre tout en sachant que ni peut-être loolu laa tëjee c'est son dernier discours élection présidentielle yi di ñëw du ci bokk ñu koy souhaiter nag bon vent di ñaan nag keneen ki nga xam ne moom mooy ñëw ginnaaw moom nag lépp li sénégalais yi bëgg te yaakaar ko ci moom ñu daal di koy am Amine, c'est important. Euh, Rama, merci beaucoup. Abdelrahman, merci beaucoup à toi. C'est très pertinent. Amna, amna solo mhm. euh, nous vous rappelons que nous sommes toujours en direct sur YouTube L'Évidence TV. Dès le noyer de nous suivre, comme nous l'avons dit, ça sonne. Vous abonner, de partager. Dès le petit cloche de notification pour nous donner en temps et en toutes nos <coughs> émissions. Abdelrahman, on va parler de la vérification des parrainages mhm. et le retour annoncé de Karim Meissawad. ok vérification des parrainages <coughs>